dalu rafetlu seen ànd ak programme Leral TV amat mbette di leen di euh, dégtal li nga xam moom moo jëm ci wàllum actualité ñu koy daal di waxtaan comme li ñu koy defee saa su nekk 12 minutes chrono fukki minutes ak ñaar ngir ñu daal di dalal kenn ci li nga xam moom mooy suñu plateau waxtaan ak moom tey nag ñu am mbette daal di dalal ki nga xamante moom mooy Amadou Bella Diallo mu nekk koo xamante ne xam-xamam màcc na jëm ci wàllum économie waaye tamit mu yëngu ci wàllum politique góor gi ñu lay nuyu te dalal am mbette di dalal baax ci euh, plateau 12 minutes chrono. maa ngi lay euh, maa lay fay euh, di la remercier ci invitation bi parce mm. que euh, c'était pas évident jógee France barki biig ñëw nga recevoir ma tey donc du ma def lu dul di ci am mbégte ak contenté di la remercier macha allah au regard de li fi xew ci wàllu politique bi nga nekkee France gis wala di dégg plus de deux mille plus de deux cent et quelques candidats yoo xamante ni samp nañ seen dem ci élection présidentielle 2024 vous vous êtes dit quoi exactement lan nga wax est-ce que jàpp nga ne peut-être président euh, maanaam euh, li nga xam moom mooy fonction présidentielle jamono ji euh, gars yi dañ koo soofanta wala dañ koo xem ci li nga xam man li ma ci bëgg a wax rek mooy que ne donc ñi nga xam ne ñoo ngi dem di posé wu nekk candidat à la candidature donc waroon nañu réfléchir bu baax parce que du ko jog rek nekk président voilà tey jii nga am 200 candidats bëgg a organiser ay élection c'est infaisable bon non seulement dina am un coût exorbitant mais en même temps organiser ko sax donc c'est matériellement impossible. D'où l'importance voilà. de Euh, parrainage bi ça a toujours été une très bonne chose parce que dina permettre que ñu xam parce que tey jii euh, ku jóge fu nekk ñoo ne damaa bëgg a nekk candidat ñu bàyyi la nga dem euh, fekk ne yow mënoo mobiliser sax à peu près une mille personnes donc loolu aussi ça pose problème te parrainage bi ci condition yi ñu koy defee man jàpp naa que ne bon c'est c'est une excellente chose parce que bu ñu waxee que ne donc il a un minimum de parent yi nga xam ne war nga ko am. sans compter que ne dans les régions aussi war nga am au moins 50 pour cent des régions nga mun fa valider à peu près 2000 2000 par an. bu fekkee parrainage citoyen nga def. parrainage citoyen hmm. bon ñi nga xam ne nag ñoom ñoo def beneen parrainage bi bon xam nañ leen ils sont très peu nombreux ñi nga xam ne am nañu 12 députés wala am 120 maires euh, bëriwuñu euh, coalition yi nga xam ne am nañ ko. Hmm. waaw d' accord euh, bu ñu waxee ci parrainage jamono ji. coow li jóg na ci Ousmane Sonko ndax dañ ko war jox fiche am am euh, lan naka nga jàngatee li ni mel. man li ma wax euh, rek euh, mooy que ne ay avocat ak ay conseillers dañuy juum ci seen combat parce que fi nga xam ne foofu la ñu war a dem pour ñu réintégrer ko duñ fa dem dañuy tourner juste autour fan la ñu war a dem. voilà bu ñu demoon ci conseil constitutionnel bi nga xam ne donc moom moo jëloon dogal de confirmer que ne DGE am na droit bañ ko jox ay parrainage am yaakaar naa foofu la ñu waroon dem. Euh, directement moo gën euh, wiiri wiiri bi nga xam ne ñoo ngi koy def euh, fu ci nekk te aussi bon tey jii mu nekk entre les mains de la détention hmm. donc loolu aussi dafa nekk beneen complication bi nga xam ne donc dañ ko war a clarifier moom biñ koy woo ci ay procès yi nga xam ne donc amoon na ci responsabilité parce que lépp li nga xam ne dal na ci kawam yaakaar naa am na ci part de responsabilité bu fekk am na li nga xam ne jot nañ ko clarifier ak li nga xam ne jot ñu ko clarifier mais euh, man lu may jàpp rek par rapport ak parrainage tey jii donc dans les conditions actuelles jox ko ay fiche de parrainage pour man amul sens. c'est-à-dire. voilà parce que euh, Sénat euh, bi nga xam ne ñoom wax nañ nañ ko remettre mais Sénat am na ay prérogatives prérogatives bu Sénat yi donc bon tout est décrit en détail ci code électoral bi bu ñu demee ci article six code électoral bi donc wax na lan mooy pouvoir bu Sénat. Hmm. Sénat dafa invité la DGE donc pour que ñu jox ay fiches de parrainage. Bien mais jox ay fiches de parrainage ki nga xam ne donc il n'est pas sur les listes donc man jàpp ma ne am na sens parce que pour être euh, éligible il faut déjà être électeur. moom comme il n'est pas sur les listes électorales donc je pense pas que nañ jox ko parrainage am na sens. d' accord euh, coalition Benno Bokk Yaakaar xam nañ ne ca diwaan bu Mbour nga nekk àndoon nga ak ñoom même si euh, par à euh, un moment donné génnoon nga dem euh, gëm sa bopp. élection présidentielle euh, kan la ñu xalaat ne Diallo moom lay àndal pour élection présidentielle boobee. xam nga parti boo gis rek am na lu ñuy wax discipline de parti. Euh, bi euh, son excellence monsieur le président de la république Macky Sall bi mu jëlee décision ne moom il sera pas candidat à sa propre succession bi mu xasee jël décision bi donc il fale que ñu xool ci Benno donc kan mool am le meilleur profil pour que mu jiite coalition euh, ci lañu jëloon euh, décision ne léegi ñun def nañ confiance euh, président pour que mm. moom mu tànn ki nga xam ne doy na ko pour succéder ko à partir de ce moment donc ki mu jël jiital ko ñun dañu ñëw boot ci ginnaaw jàppale ko moom mooy Amadou Ba. mooy Amadou Ba waay Amadou Ba ngay àndal. Amadou Ba lay àndal waay. pourquoi Amadou Ba pourquoi pas Aly Ngouille Ndiaye pourquoi pas donc euh, pourquoi pas Boun Abdallah Dionne. waaw xam nga ñooñu ñëpp euh, ñu woon ci coalition bi te tey jii boo xoolee que ne euh, ñoom ñëpp ku ci nekk Aly Ngouille bon à part maire bu Linguère je pense pas que ne donc à am na fa électorat. mais amal au moins Aly Ngouille Ndiaye. am na maire bu mais malheureusement Amadou Ba amul sax maire bu Parcelles fi mu dëkk. waaw mais loolu amul importance parce que li am importance mooy appareil bi nekk ci ginnaaw parce que tey jii euh, donc bon coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñëpp nangu nañu bootu ci ginnaaw léegi bu fekkee ne y' a quelques récalcitrants bu ñu jàpp Boun Abdallah Dionne donc jàpp Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao donc man je pense que je pense pas que ne donc dina am impact même ci électorat euh, Benno parce que ñoom ñëpp ku ci nekk ci sa gox donc ñi nga xam ne ñoo fa nekk Benno ñoom isam ñu ngi fippu donc pour wane que ne ñoom seen bopp que ne ànduñu ci décision yooyu nga xam ne ñoom jël nañ ko. Hmm. dañu continuer ànd ak euh, la mouvance présidentielle. d'accord est-ce que jamono ji jàpp nga ne kon bu ma la déggoo say kaddu mooy da ngay militer pour la continuité parce que Amadou Ba c'est le candidat de la continuité bu ñu déggee li ngeen wax. mais continuité boobu ñenn ñi jàpp nañu ne jamono ji ndool bi métti na jamono ji euh, lu jëm ci wàllum euh, surtout l'immigration irrégulière nga xamante ne ñu bëri jàpp nañ ne taux de chômage bi métti corruption bi mm. est-ce que continuité loolu moom ngay moom ngay àndal euh, man du analyse boobu laa ci am parce que man bu may dugg ci politique euh, bokk na ci li nga xam ne moo gën a motiver sama dugg ci politique mooy bi ma découvrir le plan Sénégal émergent bi ma découvrir le plan Sénégal émergent man ci laa ne donc voilà enfin donc am nañ benn cadre bi nga xam ne mën nañ ci sukkandiku pour développer le pays parce que tant que ñoo ngi doon dem di tëñëx tëñëx yi di dem bon gis nañu li fi doon xew tey jii bu ñu xoolee les avancées déjà plan euh, plan Sénégal émergent donc en 2012 xam nañ fi électricité bi tolloon ci Sénégal. Hmm. bon tey jii xam nañ fi mu toll. donc autoroute yi xam nañ fu mu tolloon donc en 2012 bi euh, laata président son excellence di jël budget bi aussi xam nañ fu mu tolloon xam nañ fi mu egsi ak tout ce qui a été découvert par la suite parce que bu ñu xoolee euh, en 2012 ñu ngi tolloon ci à peu près 500 mégawatts. pour l'ensemble du Sénégal moo doon indi ay problème ay délestage zone bi am tey zone bii du am suba ainsi de suite tey jii donc loolu wàññeeku na bu baax bu ñu mën a def émission bi tey jii ba mu jeex ñu am sécurité que ne donc du ñu am benn coupure wala du am benn interruption donc euh, parce que am na ay avancées yu am solo yi nga xam ne def nañ ko te loolu yëpp. Hmm. plan Sénégal émergent bi moo ko tax. tey jii bu dem bi ak dikk bi yombee donc mooy ak euh, mise en place donc euh, autoroute à donc loolu aussi désenclavé yenn zones yi ak pont yi nga xam ne defar nañ ko donc loolu yëpp dafa bokk ci benn programme bu global bi nga xam ne dañoo plan Sénégal émergent horizon 2035 fii ak egguñu 2035 donc yaakaar naa que ne waroon nañu mën a may nit ñi ñu eggale seen liggéey ba egg foofu. kon su boobaa xanaa dootul dootul nekk euh, mandat yi ngeen laaj parce que 2035. ce qui signifie que 2029 élection présidentielle dafa war a am da ngeen militer encore une fois pour ñu jëla tegaat koo xamante ne peut-être dafay euh, poursuivre ce chemin là. pour ñu dem horizon 2035. non man jàpp naa que ne fi ñu toll nii donc euh, depuis bi ñu toll nii donc il y a des avancées significatives. bien sûr donc. Euh, sur le plan infrastructurel non non dans tous les domaines même sur le plan de l'agriculture parce que tey jii Sénégal moo ngi tendre vers l'autosuffisance en matière donc bokk na ci plan Sénégal émergent te am na yenn domaine yi nga xam ne donc am nañ ci déjà autosuffisance am na yeneen domaine aussi am na ay jéego yi nga xam ne ñoo ngi koy teg te incha allah donc euh, dinañ ci am euh, résultat hmm. li ci des mooy que ne euh, ci wàllu donc industrialisation dëkk bi on a des ressources tey jii lan la ñu doon phénomène bi ñu amoon mooy que ne les gens ils viennent prendre les ressources ici dem transformer leen à l'étranger donc dellu siwaat ko fii pour jaayaat ñi ko ñu koy consommer donc parce que tout ce qu'on consomme am na yenn matière première fii lay jógee voilà léegi nag lan moo lan moo ñu empêché ñu am euh, donc euh, ay exigences par rapport à ces partenaires en leur disant que donc li ngeen di transporter di yóbbu ñu produire ko ñu transformer ko fii sur place donc mooy la mise en place des zone économiques et spéciales gis nañ ci d'ailleurs il y a jours donc son excellence donc inauguré zone économique et spéciale bu nekk euh, Diass bien sûr donc zone économique euh, spéciale bu Sandiara donc il y a à peu près une trentaine d'usines yi nga xam ne donc ñoo ngi fay implanté wu y en a 15 qui sont déjà opérationnels oui. y en a 17 qui sont en cours de construction loolu yëpp donc dafa nekk ay leviers yi nga xam ne dina permettre xëyu ndaw yi hmm. donc ñu mun ci euh, am ñu mun ci avancer parce que tey jii problème bi mooy euh, ndaw yi nañ lañ mën a def pour occuper leen parce que tey jii loolu mën a tax ba immigration irrégulière bi mu jeex dina wàññeeku même jeexul parce que immigration irrégulière donc hmm. mënul jeex parce mu ngi rêvé feneen. bien sûr donc kooku du un phénomène économique. d'accord donc mën na ko mën na ko wàññi considérablement ñi nga xam ne dañu dem pour des raisons économiques. mën nañ fexe ba capter leen. d'accord léegi nag après ak euh, évolution dëkk bi ni muy demee. ak euh, donc le fait ñu découvrir qu'on a du gaz du pétrole. donc ak lépp li nga xam ne mën na ko jur comme activité ak infrastructure plus tard. donc rêve bi nga xam ne moom la ñu rayoon ci ndaw yi. donc mën nañ ko dekkalaat ba ñi nga xam ne euh, seen xel dafa nekkoon ci dem feneen. ñu changer d'avis ñu toogaat fii ci biir. il nous reste deux minutes pour parler sur deux points l'économie du Sénégal vous êtes économiste. vous avez bien entendu am nga xam-xam ci li ni mel. comment est-ce que vous voyez l'économie du Sénégal puisque récemment FMI nee na ñu ngi tendre vers croissance économique est-ce que jàpp nga ne peut-être am na ay leviers fi taxaw yoo xamante ne mën na jàpp ñu mën na tax ñu gëm ne Sénégalais bi dina sentir croissance économique boobu. non nañu xool euh, budget bu Sénégal euh, cinq cent milliards. Mm. donc en 2012 ci temps Abdoulaye Wade tey jii ñoo ngi ci. 7000 euh, milliards en 2024 7000 milliards. te avec le gaz et le pétrole yaakaar naa mun nañ ko dépasser largement. oui euh, donc euh, loolu yëpp dafa nekk autant euh, de leviers yi nga xam ne dina permettre économie bi mu gën a dox voilà li ci des mooy que ne fi ñu toll nii. Mm. bu ñu xoolee taux de croissance fii Sénégal par rapport au reste du monde. donc Europe récession la ñu wax donc taux de croissance bu négatif ñun nag on a un taux de croissance à deux chiffres donc loolu yëpp nekk peut-être que bon masse yi ñoo tolloowul xam nga bu ñu wax budget France ni toll budget ni mu toll donc bu ñu wax taux de croissance même bu ñu nekkee 10 pour ñu nekk à 1 pour cent peut-être que mën na euh, xam ne ñoom mën nañ ko réaliser te ñun mënaguñ ko réaliser fi ñu parce que masse yi ñoo tuuti mais aussi dañ koy delloo ci suñu population population Sénégal mu ngi soog am 18 million donc tey jii Sénégal bu fekkee ne ak euh, découverte yi nga xam ne am na hmm. euh, gérer nañ ko convenablement donc mun nañ dem ba rivaliser ci ay Qatar ay Dubaï phénomène parce que c'est à peu près le même phénomène euh, ñoom bi ñu découvrir seen pétrole ak gaz donc ay dëkk yi nga xam ne désert moo fa nekkoon bi ñu amee pétrole ak gaz seen population bëriwul seen dëkk yaatuwul yenn yaatuwaay donc avec l'arrivée gaz donc dem nañ ba développé seen dëkk ba fi ñu toll nii koo munti wax damay dem Qatar koo munti wax damay dem Dubaï. d' accord ainsi de suite tey jii Sénégal mën na toll foofu. d' accord on termine exactement avec euh, bien entendu votre euh, mouvement Ande Booloo Defar Saly qu' est euh, koy laaj waa Saly j'ai fait énormément de choses. comme quoi exactement concrètement en quelques secondes oui. non donc j'ai fait énormément de choses Sénégal ci boppam parce que boo demee Louga. Euh, tabax naa fa une grande mosquée donc euh, ci fiefu Thierno Bachir Tall donc à Thiès aussi la même chose donc feneen ak feneen aussi am na infrastructure. mais lan nga pour ndaw yi peut-être pour ñu. Euh, nekk dem ci man Saly bi may bi may ñëw Saly Saly amuloon lycée. oui lycée bi était en dehors de la commune. sur le volet éducatif. sur le volet éducatif. man maa jëloon ay bus mettre ko à la disposition des élèves. gratuitement pour que mu leen di yóbbu parce que donc xale bu xëy donc 5 heures du matin pour dem egg école à 8 heures. loolu lan nga ci doon xaar politique ñu jox la poste. non parce que ñi nga xam ne yaa ngi leen doon transporté. amuñu woon âge vote. parce que ay lycéens. mais peut-être pour ñu gis li ngay def. non pas gis parce que euh, man dama ñëw ci commune parce que ku ci nekk am nga responsabilité. bien sûr te dañu ne tey ji sax boo toogee sa kër nga togg mu xeeñ voisin yi donc euh, teggin nga jël assiette dem yóbbu leen ñoom tamit ñu mun ci barkeelu. moo gën àq boobu nga xam ne ñoo ngi sentir que ne yaa ngi togg mais te ñoom mu mënuñu ci profité te man lool moom moo xaw a dal asani bi ma ñëwee gis situation bi donc lépp li nga xam ne waroon naa ko mën a def def naa ko ay euh, groupement de femmes jàppale naa leen financé leen donc à hauteur de cinquante millions euh, ñoom ñëpp ñoo ngi ci nekk di ci liggéey di ci tedd donc période ci récolte euh, oignon bi man j'ai des partenaires ñi nga xam ne ñoo ngi fii ñoom tamit loolu mooy seen liggéey bi ma demee waxtaan ak ñoom ma leen léegi nañu jël yenn quantité ñu confier ko à ces bu ñu ko jaay jël seen bénéfice delloo leen ko. votre dernier mot voilà. Hmm? votre dernier di la remercier di sant di remercier euh, donc euh, groupe Leral parce que euh, à chaque fois bu ma ñëwee donc accueil bu baax laa fi am di nuyu waa sali ak département de Mbour yëpp. macha allah merci beaucoup Amadou Bella Diallo Diallo bien sûr. moom la ñu dalaloon ni ci tey jëlee mbokk yi 12 minutes chrono ëllëg ak jàmm.